ah man mii tamit noonu laa la gëj gisee de mais gis naa la sànq. <laughs> gis nga ma sànq mais ci jàmm nga ma gis. ci nga dëkk yow jàmm jàmm rek nga yam ci nga dëkk. dëgg yàlla euh, ñu gis la fii ci plage Yoff lan moo waraloon sa teewaay. waaw man fii laa dëkk jàmmalaay bi laa dëkk quoi en face Brèche Dorée bi. Ah. sama doom jee ma seet si Mika. war a jël si ñoom xam nga tabaski tabaski bi gaa ngi koy préparé. te doom ju ne bàyyam la bi mu ñëwee nag ma ànd ak moom. doxanteeg moom fii démb tey mu na ma dafa bëgg ñëwaat ma laaj ko ne ko ndax mii kaa ma commandé Kaja ñu yóbbu kër ga affaire bi saison bi lekk ko fa la ñu ko géej mu ne dem géej. comme defuma dara tey ma ne ko nañ géej kon du na la demee. Ah, pour lan loolu. ay ay débat de quoi ñun ay lañ ay yërimaay lañ quoi. ah yéen dox. yërimaay yow mu yëraanee déebele ba caani bala maajee pour nga dégg ñu ne la kii cubalo la dee na ci ndox amul xoolal ma histoire Sénégal doo ko dégg mukk ci àdduna parce que fa am nu muy demee ko rawatina dex nag dex a gën a naqaree sangoo quoi mais géej gi gisa boo fi nekk da ngay rey sa bopp rek barki Seydina man fii mës naa fee dugg mës naa ne dugg benn jour sol tubéy bu gudd tubéy fa sol ndox mais keroog laa xam ni ci plage bi waaw keroog laa xam ni billaahi wallaahi wal kitaabi topp sa xeet maam xam fa nga jógee dafa baax la ma sama bàyyi jàngal balaa moo dee wax naa ko dimbali na ma yàlla loolu laa yaakaar waaw ñun ay cubalo loon quoi mais du taxul taxul ma ñeme ndox mi dinaa dem ba ndox mi yem ma fii mais bu ko dépassé damay mel ni ku nekk yow ma yow ma xil yow ma xaw ma laa ilaha illallah maa ragal ndox ah dama woon benn grand frère bu tudd Mout Saw Mout Saw xam ngeen ko mooy Maabo Maabo Pikine ah, xam nga ko tamit doon nekk cerno bu lay sawti naan laa ilaha illallah géej géeju Pikine dem ba bërigo xam nga ngeen bërigo da nga ko doon dégg maanaam da doon dem ba foofu yiri ñëwaat mais dafay dem retour bi la tase ak beneen nit bu lab lab ba bëdi xulleeku ci la ragalee géej léegi bu dem géej day dem wuti xootu potu tomate xam nga potu tomate lay wut sumee ko ba set taxaw ci tefes bi di tànk di sotti ci yaram bi ndax ragal ndax géej waaw mais wax dëgg yàlla nag fii nag sapeur pompier bu géej waaye ñu ngi fi def lu mucc ayib parce que damay gis fépp fu am danger dañ fay taf dañ fay ay kii quoi ay panneaux. gisoo leen xanaa. gisoo leen mais c'est que liy problème mooy yow boo xoolee géej gi rek nga xam ne géej gi yemul quoi xool li géej gi yow géej gi da ngay nekk fii gis vague demee nii xoolal vague yi demee nee léegi boo nekkee ci bigg bi di fay boo demee ba ci biir bi affaire bu jaxasoo yow doo xam fan ngay teeree quoi loolu lay problème bi. dafa doy waar parce que li tax ñu taamu géej yëpp nañ leen nee leen dem leen ngeen sangu yi mais bii bàyyi leen ko am na lu comprendre nga parce que bu doon sénégalais bi day yem fi mu war a yem mais xool da ngay xool foo xool di nga gis benn nit koo xamante ni day wane ni maay Abou Thioubala wala maay Wally Seck wala maay wooy Youssou Ndour xam nga mën ngaa wooy rek ñu commencé wooyee catu karaw di dugg gisoo laay lay la saa lii warul de lii lii lii lii warul comme ni ko abu waxee mais Abou yaa ngi ci réew mi mu am lu jot a xew ci réew mi yaakaar naa nag fekk na la fi. Mhm. ay histoire yoo xam ne jot na am ci entour diggante artiste ak artiste. Mhm. Euh, diggante Wally Seck ak di Diop seen jubóo bi. dama demoon France. am naa fa trois mois ñibbi si Sénégal toogaat fi quelque temps delluwaat amaat fa trois mois ñëwaat. li xew ci dëkk bi yëpp fa la may fekk xam naa lépp. mais man jubóo bi man li tax ñu ne jubóo Sidi Diop ak Wally Seck damaa mosul fekkee fu ñu xuloo quoi. yow yow doo xuloo mosuma gis ñoom ñaar ñu xuloo quoi man loolu mosuma gis mais li joto am nag li diggante ak yàlla ndax mos ngaa gis Wally Seck ak Sidi Diop ñu xuloo mais seen staff non damay loolu mais ba histoire jotoon na am seen diggante waaw léegi biñ toogee Sidi di ko eh, eh, ko gisee xanaa ñoom rus nañu loolu kese la maanaam bu nit tax ngay xuloo kenn saa gisee booy xuloo xoolal sa paxu bàmmeel ni mu war a mel nan la war a toll ñaata temps nga fa war a def yooyu nga war a sóoraale mais bu benn doomu aadama tax ngay xuloo nit parce que fii gis fii lu fa waay def maam c'est que lu fa waay def boo màggee rek rëccu ko kon nay rafet quoi bu kenn xuloo ndax abu ci bolo waali wax na la ko waali woy ne sax bi bi muy door a woy loolu la wax yow sama soppe bul bul di xulooti ndax man mais dafa wóor ngay xuloo ndax nit tey mi si di ñëwee këram fépp la ko dugal. wan na ko ba woon koy oto yi maam. parce que da lay woon ne kon kii jàppalul Sidi dara. mais Sidi mi déplacé wu nag dem ba ci waale. saa yi loolu doy na waar de. mais mais da dégg ñu ne ñu ne bergerie maanaam sëñ bi kese kese kese moo tax Sidi Diop def lu mel nii. waaw léegi nag ñi koy wax. waaw gis nga ñun ñi koy wax noonu. seen xaar la ñuy wax te et tamit lu jar a suuraay la mais li wóor ba wóor mooy jàppal ni fii ak Zénith bi paasewul doo ci xam dara bu Zénith bi paasee. chaque instant mën nañ gis Sidy dafa dem Wally dafa dem wala sax ñiy wotante téléphone di ko rafetal comprendre nga bu ko defee ñëpp xam ne ñii am nañ jàmm mais bu dee zénith bi jeex na rek Wally Sidy ñëwatu fa Wally dematul ci moom dañuy xam ne zénith bi kese la woon mais man abu ci bala jàppagu ma loolu ba jusqu'au bout ah. man li ma jàpp daal mooy mosuma leen fekk fu ñu xuloo ñoom ñaar te sérieusement jamono ñu toll nii sax lu bari waruñu ko waxtaanee lu dul benn wax muy sénégalais yëpp surtout wooy woykat yëpp dañoo concentré wu ci ni actuellement équipe la ñu yor mais jamono ji Siri moo takk capitaine bi. mais loolu mënoon na. dem pour football yi. fi may waxee ma xóot moo am programme boo xamante ni international la. kon capitaine lañ ko war a takkal ñun ñëpp ñu ànd ak moom gunge ko mu dem dóor yi ñëwaat. ñu mën a dem dem ñu mënta dem toog xaar ko parce que ndamu Sénégal la ko ci loolu la ñu war a concentré wu te xam ne Sénégal jàmm rek a fi aj comprendre nga àdduna du dara. parce que ku la waxoon ne la bis dina mës a ñëw jomaay mi nekk président doo ko mës a gëm. xoola mu ñëw nekk président ki ko tëjoon kaso moo ko gunge génne ko palais bi kooko ko jox caabi palais ne ko am palais caabi ngi nii comprendre nga adduna dara quoi billaay walaay day jeex maanaam man su ma xalaatee bis bi ngay takk di war la yóbbu pour suuli la maanaam lu bëri dama ko bëgg ci àdduna moo tax gise yi bëri man dama ko dépassé level bi gars yi nekk man nekk moo fa man jamono ji wut xaalis laay laa laa bëgg mu mën a dimbali kii toog mën a dimbali sama yaay mën a dépassé yenn frontières yi sabran nga yàlla dogal na sama jabar mi ngi France heure bu ma jógee fii su ma fa demee damay wuti lu ma am suma ma fa pare su ma fa pare damay ñibbi si waat su ma fi ñëwee waxu programme laay wax su ma ko amul toog muñ jàpp ci yàlla mais adduna bi daal wax dëgg yàlla man moom amatul lu ma ciy bëgg quoi ak sutura bi amatul lu ma fi bëgg lu dul sutura ak teraanga mais gis nga gis nga gouvernement gu bees gi. gisuma leen ñoom ñëpp xaw ma ci kenn. mais mais mais nan nga gisee seen doxalin ni ñu ni ñu toogee ni ñu toogee ak ni ñu commencé. waaw parce que ñoom actuellement nii benn conseil lañ amagum conseil de ministre benn yoon lañ ko defagum. mercredi lañu defaat beneen mercredi incha allah mercredi bu weesoo man war naa cee gisee euh, ministre bi nga xamante ni moo yor moo ŋànk artiste yi ministre de la culture man war naa gisee moom ndax am naa rendez vous boo xamante ni ku ko jege nee na bu affaire yi jeexee dinaa la woo nga fekk ñu benn lien nga ñëw ñu toog waxtaan parce que Abdou am loo def ci réew mi. dëgg la yaa ngi dégg première xale bu jógee Sénégal dem defi tournée États-Unis douze états yow la Sénégal ñu def sondage defoon la nga nekk numéro un ci képp ku tudd Sénégal nga nekk numéro un. tey fa nga tolloon Sadio Mané fa toll Sadio Mané la tudd fépp ci àdduna bi te loolu comme RFI ko waxoon bëgg naa nga ñëw ñu toog ak ministre bi waxtaan ak moom. beneen bi mooy euh, bëgg naa ñoom ñi xàll yoon yëpp et puis am ñoom confiance parce que ñoom dañoo jaar fi nga xamante ni fa la sénégalais yi sonn yëpp doon jaar Sonko jaar na fi sénégalais yi sonn yëpp doon jaar daj na lu mburu dajul ci fuur waaj maam ci maam ci fuur ndéem daj na ko war na xam luy coono xam nga ko luy tëj kaso ay xale yu ndaw di dajale seen xaalis ak ñu nekk bitim réew di la ko jox pour nga mën koo dundee ba lay jëndal oto yow boo demee ba nekk premier ministre war ngaa xam ne ñàkk metti na li ko nit ñi doon defal yëpp yàlla na ko yàlla may xolu muñ ak xolu def ko mu koy defal doomu aadama yi actuellement tabaski jub si na Sénégal métti na ñëpp a ngi yuuxu mais sérieusement parlé ñun mënaguñ ko wax dara parce que trois mois quatre mois mënoo ci wax nguur gu bees dara quoi ñun daal li ñu koy ñaan daal mooy yàlla na déggoog Sénégalais yëpp te li mu bëgg ci réew mi tamit ak li mu doon wax te mu nekk ci xolu maam ci xolu doomu aadama yi yàlla na ko yàlla mun loolal moo def ko incha allah loolu la ñuy ñaan quoi. yàlla na ko yàlla. bu ci cadre géej gi moom weddi gis parce que géej gi fii dama fi doon toog pour picc sax problème la mais xoolal bopp xoolal cat ba cat ay picc rek ngay gis te picc géej yi picc yi nii ngay gis nii gisoo picc yi nii ngay gis nii nii xoolal xoolal xoolal xoolal baax a baax tegal say verre gisoo picc yi non non gisoo picc yi nii ci biir géej non saa yi baax a baax nga xool xoolal ci biir a biir foo xool très bien ay picc la maam li la koy woon mooy ñii picc yi di naaw nii fii ci géej gi duñ naaw fu jën nekkul jën yi dañuy turu sa diggante ak yàlla yow tefes bi nii fekk fay jën yi dee jën yi bëri man loolu daf may yéem def fee luñ fa def <laughs> loolu dañuy dem wuti li ñu lekk pour ñëwaat parce que affaire dafa tuuru bu toll nii man dañ ma ko wax ko bi ma jógee France ñëw laa yéemu ci yàlla mu ñu kaa démb lan lañu romb ay jën yi bëri ay jën yi bëri nañu romb fii barki alxuraan karim yi génn ci tefes bi nii foo gis ku ci bari yi nii rek ku ci géej gi nga gis nii kii géej yi jàppal ne am na jën kon Sénégal du koy defar lu yomb la mooy wàññi wax yu bëri liggéey nit ñi am luñ dundee loolu kese problème bi ñu bàyyi defante bi te xam ne li nekkoon weesu na quoi loolu la quoi non yàqante bi moom du fi jógee moom dafa fi jógee ah, fi jógee parce que dañ ko tàmm tàmm xas nañ ba tàmm ko dafa fi jógee ba ilaa yoomi ci suñuy maam la dafa yàgg quoi. mais mais gis nañ ne gis nañ ne réew mi temps yi gars yi dañuy wax ne agression bi bëri na lool lool lool ñu ne liggéey moo amul ñu ne liggéey bu dëkk bu dëgër moo ko waral ba pare encore benn mag ne ma artiste bu njëkk dañ doon yeete. di wéy luy yeete di wéy ci wàllu agression bi ak wàllu réew mi ni ñuy doxee. mais léegi artistes yi lu bon rek la ñuy wax seen làmmiñ yi lu bon rek la ñuy wéy image yu ñaaw rek la génne ndax loolu yow. ah man man man ci man ci laa bokk. déedéet man Sénégal yëpp Sénégal yow loo mos a woy yeete waaw man téere laay woy comprendre nga léegi li ci li des nag ñoom bu ñu demee bay woy heure bu artiste du ko tee studio di woy na xalaat ndayam xalaat baayam nit ku nekk nañ lay rey rek boo génnee loolu ngay wane ki la jàngal ki ko jàngal ni mel rek lay mel kon moom bu la jàngalee noonu nga war a mel man jommu naa nekk ci studio di woy lu maam lu dul jëriñ doomu aadama yi waaw mais nag tamit bu mu tax tamit ñi yenn booy yi parce que kenn ku si nekk tamit te sérieusement ñun ñëpp ay way yëmb nag waykat bari ku ne sa baat neex na la mais doon ci ndaanaan mooy li jafe te abu cubaloon daanaan la <laughs> abu cubaloon daanaan la mais abu abu abu sëy léegi tamit bëri na bëri na ay ay ay détails lool mu am mu am benn sëy boo xam ne yëngu na fi fan yi yëngal na réew mi ñii di wax ne xale jigéen ñi ñoo bëggul say ñii ne xale góor ñoo mun ñoo mun ta yor jigéen man de sama jabar bu ñëpp meloon ni moom sëy neex yow sa jabar sama naar boobu sama lawe boobu sama français boobu bu ñëpp meloon ni moom rek say yomb man sama jabar bokk na ci jabar yi gën ci jabar yi. lu ah ma xuloog moom lu ma bëgg lay def lu ma ko wax lay def moo tax moom lu bëgg laay def lu ma wax laay def moo am problème ak moom xale yëpp bu ñu rek coow ma koy maye mooy xam nit ki nit ki balaa ngaa dugg ci moom da ko war a xam. dépassé nañ fi ñu yëkkatee nit rek may ko nit yaa ngi dégg mais majeure partie bi boo xoolee xale yu jigéen yu bari yi tas lii tax ñi tas mooy ki muy siil dañ ko dul xam poosam la ñuy xam wala juddoom quoi comprendre nga. Mm. mais ni du noonu ànd la koo déggool ànd ki nga déggool moo gën junni yoon di ànd ak ñoo xamante ni yor nañ àdduna ak li ci biir te déggoowul ak ñoom. waaye sëy dafa sëy dafa yéeme de mm-hmm. mais loo xam ne yow dañ la ko digal pour nga def ko mm-hmm. yal yonent bi ne la war na kii suusa waa na kii suusa muy juróomi ponk ci alxuraan ñu ne la góor ki ku góor ki bu matalul juróom bu mu la takk mais xale jigéen léegi bu ñu la gisee yor xaalis dañuy ñuy sëy amaatu diine jëkkër day am diine parce que boo amee diine mën ngaa gis ko am diine ba pare dëng mais heure bu naree def lu ñaaw dina xalaat yàlla dina xam ne dafa war am kon bu su su naree metti moom dina jéem a xool nan lay def xam nga ba ba arriéraat ci loolu ko mais dañuy gis benn xale bu góor bu mel ni Abou Cubalo xamul dara way rek lay def nga topp koy eh, mu tàkk la day demaat wutaal leneen rek comprendre nga ànd la koo déggool moo gën junni yoon di ànd ku am parce que boo déggoo ak moom loo bëgg am dañ ko am bu fekkente ni jigéen nga ànd ak jëkkër ju dégg maam ji maam jëkkër gu dégg ba pare yéene la kooku tey boo jógee pour wuti dara danaa la demal nga wuti ko parce que après confiance mooy lan loolu mais nga am jëkkër mu la bul liggéey te moom liggéeyul dara bis ay kii jëkkëru jàmbur yi ñu ci bëri ay businessman la ay businessman da ngay xëy waajil def business ñu xëy jàpp ko ban business la doon def buñ ko waxee ci rajo yi mu doon musiba boo xamante ni boo ko delloo sax da ngaa est-ce que kii ma doon seeyal kii la lépp xale yu jigéen bi rek la dañoo sopp réew bi ci ñoom dañoo bëgg xaalis ba pare bëgg góor yàlla ma yàlla jégal ci wax est nañ leen ci sëy tamit waaw bañ a tàggat fii fii ñun ñun ñun suñu génération ñun ñëpp suñu yaay dañoo baax dëgg la mais booy ngeen baal ma dañoo bëgg góor rek mooy li ma la expliqué maanaam jotaayu góor dañoo bëgg jotaayu góor comprendre nga nañ dem fee nañ dem xool la ko jënd rek fii xool ni muy demee ku àndul ak góor yow pour yow ànd ak kenn waaw mais nag kay ma xamal tamit billaahi wallaahi ñoom it bëgg nañu séede parce que man ñi ma ci gis bari nañ torop ñu bëgg sëy mais tamit ñun dañoo dëng quoi tamit billaahi wallaahi ñu ne dañ ñu affaire bi ci ñaari cas yóbbu non barke yàlla góor ñi dañoo bëgg jigéen trop te nanguwuñu takk <laughs> ah soof nañ lool lan dem takk jabar ah léegi barki démb dama moom dama ko invité barki démb sànq da wax ne jigéen ñi nañu wut góor gu am diine moom laaj nañ ko ci wàllu diineem ñaari question mu ne après loxo tontu yow nag mën naa la laaj ñaari ñaari question rek ci wàllu diine ji. waaye man loo ma laaj loo ma laaj su ma ci mënee. bëgg nga jàngal nga jàngal ñu sangu farata. ma jàngal la. sangu farata parce que dañ ne balaa nga jàmm yàlla da ngay ànd ak laab ba pare. waaw boobu sa ne da ngay raxas sa loxo ñetti yoon. loxo bu nekk mën nga ko raxas ñetti yoon. nga raxas sa naq ba mu set wicc. boo ko raxasee ba mu set wicc mën nga jàpp benn par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 Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar avant ngay sëlmal avant ngay sëlmal atayatullahi zakiyatullahi tayyibat asalawatullahi assalaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin bu ma ko noonu waaye ah <laughs> waa kii moom macha allah <laughs> kon émission bi mën nañ ko mën nañ ko yemale fii parce que tamit wax dëgg yàlla euh, sànq ba léegi ñoo ngi fi mais tey dañoo wër ba taseeg imaam imaamu imaam yi parce que tamit lii dafa jafe ci artistes yi artiste artiste artiste artiste artiste bu jàng artiste bu jàng ak artiste bu pratiquer diineem bëriwul ci artistes yi bëri na yoo xam ne seeti nañ leen dégg leen seen mikoro wante lu jëm si seen wàllu diine xamuñu ko mais abu Thioubalo loo mii lu ko waay waxal lu ne rek da nga ko sosal parce que macha allah xam na diine maîtrise na diineem te mu ngi pratiquer diineem mu ngi jëfe diineem kon ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allahu rabb ci beneen numéro ci seen beneen daanaan ciao bye bye. merci beaucoup dem naa ba beneen